mais aussi euh, saluer vos collaborateurs, euh, particulièrement mon grand frère et ami Mouridiane Fada, le docteur de l'agriculture, mais aussi le docteur euh, Makumba et tous les autres euh, collaborateurs euh, que vous avez. Monsieur le ministre, l'agriculture est très important, je pense que ça s'est dépassé, parce que euh, tout à l'heure, mon collègue est en train de me regarder, Il aime, euh, mon collègue et doyen, il aime toujours parler du colonialisme parce que il a, parlé, il a étudié l'économie chez le colon. C'est pourquoi tout le temps il parle d'économie colonialiste, de colonialisme. Il est totalement dépassé, monsieur le ministre. C'est pourquoi bu ko jàppale li muy wax parce que xam nga nit lu mu jàng rek loolu lay tari. Euh, président de la république bu ñu xoolee budget 2021 ni mu ko tëggee parce que dañu xool ne boo xoolee démb ci considération général ñu ngi koy wax ci fondement de la loi initiale ñett yi ko déterminer mooy d'abord renforcement de la souveraineté alimentaire beneen bi amélioration de la couverture sanitaire ensuite développement de la capacité industrielle ci yooyu mooy contouru loi bii ñuy voté muy loi de finances bu 2021 donc cela veut dire quoi cela veut dire que l'agriculture aujourd'hui est au cœur des politiques publiques développement bu ñu ko dee wax tey fi ñu ko mën a yaakaare monsieur le ministre mooy l'agriculture parce que wax nañ ko Covid bi gis nañ li nga xamante ne nii moom la indi jafe-jafe yi am mais bi ñu ñëwee ñu xool tëgg mbir mi nga xamante ni moom mooy PAP 2 ajusté accéléré dañu wax ne fondamentalement dañu war a compter sur l' pour que croissance bi nga xamante ni ñu ngi koy séenu ñu mën ko am. parce que boo seetloo tey en Afrique les économies yi nga xam ne ñoo gën a mag parce que dañuy wax ne récession sans précédent parce que boo xoolee Afrique du Sud ak Nigéria mooy économie yi gën a mag te boo xoolee ay récession yu bii mooy 5 pour cent bii mooy 8 pour cent donc loolu dafa nërmeel li nga xamante ni mooy économie yu en Afrique mais tey jii bu ñu demee ba ñun ñu ne ñi ngi projette 5 virgule 2 pour cent c' parce que am na loo xamante ni cëslaay la goo xamante ni président de la République ak son gouvernement am nañ ko te loolu fondamentalement agriculture bi mooy li nga xamante ni. mën nañu indil li nga xamante ni moom la ñu bëgg moo tax je pense que li nga xam ne yàgg nañ ko wax muy souveraineté alimentaire bi moo tax ma bëggoon interpeller la parce que y un de mes collègues qui l'a par rapport surtout au riz parce que lan mooy contrainte yi tey ba atteindre guñu autosuffisance alimentaire parce que ay contraintes dafay am parce que il faut que les gens comprennent que quand une planification mais mu am des efforts considérables qui sont fait il faut d'abord accepter xool xam ne lii moom mooy effort yi contrainte yi nga ñëw def un diagnostic profond maintenant nag nga ne contrainte yi lii la et je pense que monsieur ministre war nga mun a wax tey lan mooy contrainte yi pour que d'abord nit ñi ñu bàyyi bàyyi parce que am na ñoo xam ne depuis trois ans maa ngi leen di déglu fii bu ñu ñëwee rek daan ne waaw monsieur le ministre lan moo tax atteindre guñu autosuffisance alimentaire ba tey parce que xamuñu planification day am planification bu amee day am ay contrainte contrainte bu amee après nga def un diagnostic profond pour maintenant xam exactement contrainte yi lan la ak fan la ñu jëm donc loolu je pense que war nga ñu ci mën a édifier pour que ñu bañ a poser ci question yooyu éventuellement boo fi ñëwee et c'est important donc je pense que les efforts du ministère de l'agriculture mi ngi fi am na gis nañ ko les résultats sont là parce que yàgg nañ am coow ci campagne agri mais campagne bi déggoo fi benn coow mais loolu moom mooy que le président de la République a mis les moyens pour que ñu mën a am une campagne une bonne campagne agricole yàlla def ndox mi ñëw yàlla def ñu am ay récoltes yu baax yàlla def tey ñu am prix boo xamante ni nii c'est pas le gouvernement qui fixe le prix encore une fois de plus parce que souvent dañuy wax woy gouvernement mais gouvernement bi du moom mooy fixer prix loolu aussi je pense que c'est important que nga leeral ko la représentation nationale ñu xam ñiy fixer prix yi ñan la bu boobaa je pense que ça encore par rapport à la réflexion. Je vous remercie.